dina pare dina pare day pare mu kenn jël rek ñu. waaw yéen tuddee ko seet. ba ki dox ci Makka. di ba mu yàgg. ñu ne gees rek jëm ci moom. loola rek. tubaarkàlla macha allah bi ñun. yéen bi la. ak yàlla ak Serigne Touba. ay sa mi ngoog waaw waaw maalu maalu quoi. na wax nekk ci doom Pawlish nekk sa doom leen dox lu baax a baax ak leen kàddu nga def ndok sa wàll maa ngi leen di nuyu nga xam euh, seen bopp suñu bopp maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di nuyu seen bopp euh, comme ni ko waxee rek contentement lañ si am ak dëkk ah, euh, Pawlish sama doom la ah, sama xarit la donc euh, wax dëgg yàlla dama ci am satisfaction bu ma tuddee tout temps mu am ay seex dëgg yàlla yéen ko loolu moom ah, di moom jaara may am contentement sama njaboot lañu bokk donc am taw fii mu gën a doon ñaax sama diggante ak ñoom ci sama diggante ñu may àndal parce que du ñoom kese dëgg yàlla ay turandoo maa ngi koy commencé bari looloo may sant yàlla. alors Pawlish ñu gis man bi muy takk jabar taxawaay bi nga xam ne moom nga ci taxawee tey jii nañu leen a indil lii nga seen complicité lan la da gis à chaque fois Pawlish euh, place Bijou Ngoné sama yaay la Bijou Ngoné Bijou Ngoné sama yaay la Bijou Ngoné sama lépp la lii ñaar amul bu complicité boobu. loolu nga wax rek noonu la demee complicité bi amul lu yaay diggante ah yaay ak doom rek ah di dëgg ah euh, diggante nit ak nitam ah wax dëgg yàlla. nit da ngay mën sa nit ah, da ngay bëgg sa nit donc loolu kese mooy li ma wóolarante ak moom ah, wóolale boobu yëpp tàmbalee ci li nga xamante ne yàlla mooy suñu xarit ñun ñëpp di sama sama doom di sama xarit moom it waali donc yooyu yëpp ñu compté di ko tissé ba léegi nii yëpp di ci am donc wax yàlla dañuy am tawfeex dañ ma ko dénk police ñëpp ma ko dénk ko yaayam dama koo may ah eh, ki tax ma xamante ak moom may ma ko donc ñëpp ma ñëpp ma jox police féetewoo ma moom donc mu neex a féetewoo ba bëgg a dee wax dëgg yàlla amul lu muy def te du ma ci gis loolu du ma laaj sama avis donc police amul sax lu muy décidé ci sant yàlla rek ah ak tawfeex eh, ko defee woon ci boo nekkee ak sa doom nag moom mu war a jël soxna da ngay am contentement. tey taxaw donc bu amee tout tànk waxit noonu wax waxi noppi sàkkantuma laat mu am loo xamante ne lu barkeel moo koy am muy ay siix ah donc loolu wax dëgg yàlla taw fi ah, dañ koy ñaanal yàlla ñaanal tout tànk yi ñu dund ah te am leer bàyyi te ay jullit donc dañuy sant yàlla suñu borom suñu borom bu baax non non bettu ma police police rek su ma ko toppal dafa dafa ne ñaari biir yoon lañ tudd ma ne ko ci àddina waaw Seydina Mouhamed waaw comme moom nga yaakaar à chaque fois moom ngay waxee dimbali ma rek ku góor ki moom na tudd Seydina Mouhamed wax dëgg yàlla donc tam ndax moom nga bëgg voilà donc benn la rek ñun ñëpp ñu nekk ci waaw mel na ni boo tuddee Bijou Ngoné tuddee nga Wally tuddee nga ñeen gis gis ñëpp donc loolu yëpp euh, tawféex la euh, ñu ci ñaan ñu ci sant yàlla suñu borom waaye du loo xamante ni ci police bett waaw ci police moom wax dëgg yàlla euh, ak ñoom ñii sama njaboot wax dëgg yàlla déedéet franchement yóbbu euh, si avion mun même lu nekk la leen wax waaye ay nit yu ànd ci seen ay jikko yu bon la ñuy karante dëgg donc euh, ñoom yàlla dafa ma nattoo dafa ma nattoo seen jëm yi ah donc euh, wax yàlla te wax dëgg yàlla mu nekk natt bu neex na parce que nag. wax dëgg yàlla xam naa dañuy ambiance rek waaye yooyu ñuy wax yi ci ëpp li tax du ma ko jàpp mooy dama ko dul suivre te dama dul yëg li ci dama dul yëg li ñuy wax donc euh, donc loolu bokk na ci li tax relation bi gën a durer donc ay nit moom bu ñuy ànd kenn mooy jàppal kenn ki ba tax xuloo am waaye ki ki la war a jàppal bu la jàppalul dara du dara du am du dëgg donc damay sant yàlla suñu borom nag sama diggante ak ay natt yu ma nag ay natt yu métti sax waaw yu ma nag mais yaa ngi koy gérer macha allah alors soo tudd tudd ci di Wally balaa ko teg saa yi ñu gis ay rumeur yoo xam ne moom dem ci moom alors boo amoo tey ban problème wala ba nga dégg kàddu na def pourquoi ay rumeur pourquoi ngeen di dégg ci bisu xew ah bis boo xamante ne bisu bégte la danañ def sujet yi au bon moment yéen tamit nag génn leen si ngeen nekk si nga xamante ne moom mooy tout tànk yi ko yàlla nga nag yàlla man ambiance bi maa ngi ci à moitié tu que ku ne xam na ni Père Gaston mooy sama tuteur donc euh, damay def kéem kàttan lu ma nekk si joindre bi nga xamante ne mooy li nga xam ne àndul xam nga naqar àndut ak bànneex te wax dëgg yàlla ak ni moom li ma ci dund ci naqar moom wax dëgg yàlla euh, defe naa duñ naan wéeruwaay jeexale naa xam tànn ah, ah euh, bis ku ne xam na ni Père Gaston bu ma nit yi xamee wala ma siiw moom la te lépp c'était mon père donc euh, Pawlish ni nga ni mu mel ci man mënut a ñàkk sama teewaay donc looloo tax à chaque fois euh, gis ngeen sànq <laughs> maa ngi wax ak Maguette mënoo di organiser fële di nekk si donc sant yàlla rek ah dëgg donc man j'aurais préféré nekk ci li nga xamante ne moom mooy li ñu fi tax a jóg. lan moo la gënoon marqué si moom parce que dégg mes interviews. toutes mes interviews nga xamante ne def naa ko su ngeen dégg à chaque fois dégg ngeen à chaque fois je répète ma man la doom Père Gaston xam nga dégg seetaan ngeen ko si koo fi seetaan ngeen donc euh, te ku ne gis na aussi làmb gis na lépp nekk man nañ maa yitee rek ak Père Gaston yàgg naa ko wax ku la jëlee Walfadjri yóbbu la TSL jëlee la TSL yóbbu la Sen TV jëlee la Sen TV yóbbu la donc koo xamante ne wax dëgg yàlla boo boo demee ba amal sa bopp sax dara lépp ci loxoom lay jaar ah li naan euh, nit am nga wéeruwaay waaw moom moom defe bokkoon na ci à cinquante pour cent sama njëriñ waay ah ku ku ma xuloon <laughs> ku ma def dara sax mu woo la attaqué la donc euh, sant yàlla ba ci BD 360 fi ñu mun ma éjecté dara sama life sant yàlla rek ci dernier moment yi ba ma ko passé ak ba mu wuyu suñu borom waaw ci ni mu tawatee ma nekk mooy jaabante hôpital bis boobu nekkee ak moom donc euh, dimanche bi jot dañ doon reerandoo donc euh, su ma nekkee Sénégal dama koy dama ciy taxaw donc euh, sama ay kilifa lañ sama waajur donc damay sant yàlla suñu borom parce que dëgg yàlla sant yàlla nit moom bu tawal tawatee ba yàlla suñu borom jël ko ngay def da ngay def sant yàlla suñu borom